parce que dem bu ñu ne am na benn waaye bu dem déposé cent quarante neuf parrain fële ca conseil constitutionnel. cent quarante neuf yow léegi nga mën a téye koo xamante ni mën na déposé un million de parrain nga ne doo ko jox fiche. koo xamante ni mënul sax am cent cinquante sénégalais nga jox ko suñuy fiche. donc mooy loolu quoi. Mm-hmm, mm-hmm. am na solo bu baax a baax ñoom Sénégal yi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax ci teewlu bi ñuy teewlu ci 99 point 0 nekk ay euh, millions de personnes mais aussi ñi nga xamante ni ñuy topp ci page YouTube Walfadjri euh, ku ci mel ni Bawol Bawol bi Habib Ñing euh, Cheikh Gueye Sonko Astou Cissé bëri na ñu ngi toll ci pratiquement 12000 personnes di ñu topp ci page YouTube Walfadjri en direct simultanément alors deuxième sujet bi maa ngi koy wax léegi parrainage la parrainage nag Moustapha Moustapha chaque jour ak euh, son lot de surprise euh, mhm. tey euh, li ñu jaaxal wala jaaxal ñu bëri mooy que Bassirou Diomaye Faye bi nga xamante ni voilà ñëpp gisoon nañ xale yi dem di ko waral parrainage parrainage bi sax ñu bëri dañ doon wax ni mi ngi commencé ba Bassirou ak waa Pastef ni dañuy commencé seen collecte de parrainage si nañ nit ñi sentir sénégalais yi jóg ak yu ni mel mais Bassirou dina régulariser près de 4000 wala waa près de yoo xamante ni da ko war soppi bi validé na neuf régions euh, yoo xamante ni jàll na war noppi mais en tout cas dina wuti quatre mille euh, deux cent et quelques. quatre mille c'est pas beaucoup. Hein? c'est pas c'est pas beaucoup mais dina ko dina ko wut au même moment am ñoo xamante ni ñu def euh, surprise général ku ci mel ni Anta Babacar Ngom Anta bravo à elle hmm? mën nga bravo mm-hmm. mais xam nga Pape Mokhtar man damay xool mbiru parrainage bi ak processus bi ñu koy valider. finalement dama naan euh, acteurs politiques yi xamuñu li leen di yott wala boog j'ai l'impression que ni dañuy dañuy tay taylu xam nga man mën naa euh, comprendre mhm. euh, nit ñëw indi temps de parrain ñu ne ko dafa am ay doublon interne externe na dem régulariser mhm. am na 48 heures pour régulariser yooyu yëpp mën naa comprendre mais man li ma jaaxal ci ci parrainage mooy euh, ci Aminata Assome Diatta laa ko njëkk a ñu ne li mu indi. Mm-hmm. am na ci ay junniy junni yoo xam ne nee nañ nekkuñu ci fichier électoral. oui déggaat naa euh, ab euh, Abdou Mbacké Baara Dolli. mu wax ne ñi mu indi defe naa Georges sax mi ngi wax ne am na benn mandataire boo xam ne ne ko newul ci fiche. newul ci mandataire mandataire Tamba bi. Tamba dañ ne ko moom nekkul ci fichier électoral bi. tey jii dégg naa euh, mandataire Alioune Sarr. mu wax également que ni ñoom dañoo travailler ci parenage de manière sérieuse et rigoureuse. Mhm. mais indi ay nit ñu ne leen nekkuñu ci fichier électoral. Mhm. waa léegi Pape Makhtar yow soo tuddee Pape Makhtar Diallo. juddoo bërëb sàngam ci Sénégal. Mhm. am carte d'identité numéro sàngam mhm. carte électeur numéro sangam. Mhm. centre de vote numéro sangam. Mhm. bureau de vote numéro sangam. ñu ne la niveau ci fiche électorale mais sa carte électeur Auchan nga ko jëndee wala Colobane. mais mais franchement man j'ai l'impression que. j'ai l'impression que les gens veulent nous dire que y a des cartes d'électeurs qu'on peut acheter à École Dior ou je ne sais quoi à marché Tilène wala marché Grand wala boog dafa am ñaar ñett ñeenti fichier électoral yoo xam ne bi nekk ministère de l'intérieur bi nekk DAF bokkul ak ba nekk euh, comment ça s'appelle là euh, conseil constitutionnel mais mais c'est ça dépasse l'entendement ça. et loolu boo ko dee wañ wàññi di ko xeep mm-hmm. mais ni ma koy dégg nii mais man na changer une élection. mais bien parce que imaginez ñi nga xam ne ñëpp dañoo bindu yees. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne man di ma ci gën a jaaxal sax dégg naa ci suba mandataire euh, Alioune Sarr wax ko. koo xam ne il a voté lors des locales ku koo xam ne voté na ci locales yi ñu génn. dem ci fichier euh, conseil constitutionnel ñu xool ko ne turam newul ci fichier électoral maanaam il n'est pas inscrit sur le au mhm. wax léegi kooku bu bu ñu toogoon ba jour vote mu dem voté ji mu dem day voté ji ñëw ci bureau ba mu daan voté dugg ci centre ba mu daan voté rang ba àgg ci bureau ba mu daan voté. Mhm. ñëw ñu ne ko xool nañ sa tur nekku ci. Mhm. combien de Sénégalais ñoo ñoo nekk situation boobu. Oui. mais ça pose problème ça dépasse l'entendement mais tey jii je crois que c'est une urgence mm-hmm. pour la classe politique principalement l'opposition mais ñu regroupé wu exiger ñu jox leen le fichier électoral ñu xool ko ñu yeewu oui ñu yeewu nañ yeewu xam xam lan moo ne ci fichier bi mm-hmm. ak quel fichier on va mm-hmm. ñi nga xam ne euh, euh, parce que tey ce n'est plus l'affaire de Assom Diatta ni de Abdou Bara Dolly Mbacké Abdou Bara Dolly ni de je ne sais pas Bassirou Diomaye keneen mais c'est l'affaire de l'électeur sénégalais bi nga la tudd est-ce que ñun ñi ñu ngi ci liste yi sax. waaw jar naa laaj de. oui maam Bira Waj la tudd ñu ñëw jox ko fiche de parrainage mu bind turam bureau numéro kii woom ak yëpp xam bureau de vote ba mu war a voté di yaakaar le 25 février mu dem Diourbel voté ji mais on lui dit tu n'es pas sur le dans le fichier. mais mais raxañ Cheikh Abdou mu nekk cinquième président nii rek. waaw na raxañ Cheikh Abdou. Euh, mu nekk premier président doomu daal. mais c'est c'est ñu koy wax sax sooy déglu la presse. ak les comptes rendus yi nga xam ne moom la ñuy def ci li xew conseil constitutionnel ñoom li ñuy waxtaanee mooy diw valide na diw valide wul. Mm, di reetaan diw. di tàccu diw naan diw fu mu jaar. mais loolu du problème. Mm-hmm. Anta Babacar Ngom dont tu parles mais Anta Babacar Ngom elle peut dire que ni man depuis ma déclaré sama candidature ba léegi je fais le tour du Sénégal. Mm. mën naa expliquer fan laa jëlee ay parrainage gis nañ ko ci mbedd eh, gis nañ ko ci mbedd yi. mais même même moom su jàllul woon keneen jàll keneen jàll c'est pas mm-hmm. man mon problème c'est le citoyen sénégalais bi nga xam ne dafa war a vote ji. wala boog daana voté ñu ne ko nekkoo ci fichier bi. mais loolu loolu mais man déjà j'ai l'impression que de la presse moom ça l'intéresse pas mais man jaaxal na ma. parce que loolu si ça continue comme ça. Euh, kii am na chiffre bu mu ci joxee euh, defe naa yoroon naa ko sax nu mu tudd euh, soxna si Aminata Assom Diatta. si excuse-moi je regarde ça rapidement Aminata Aminata Assom Diatta où est-ce que j'avais mis Aminata Assom Diatta. attends attends je vais retrouver ça peut-être ña waaw Aminata Assom ñu ne ma. bon peut-être j'ai j'ai perdu les notes. mais en tout cas bu mujj mooy. Euh, bu Bassirou Diomaye Faye. oui 12000 euh, du fichier du du conseil constitutionnel 12000 parrains. 12000 parrains mu réer. pour pourtant nag noonu la ko Ba Baara Dolly waxee woon. démb waxoon na ne Bassirou Diomaye dinañ ne ko sa. parrain yii nekkuñ ci nekkuñ euh, ci fichier bi douze mille la ñu wax douze mille parrain nañu wax newuñ ci fichier bi te on peut pas on peut imaginer quand même que ni waa Pastef euh, dofuñu dof boo xamante dañuy rob Moustapha Diop ko jox ñu sa tur sa sant ñu la ci non du waa Pastef sa carte du waa Pastef dama ne la du xam nga waa Pastef nga wax Euh, ñii yëpp c'est juste un exemple. Euh, les deux cent yi nga xam ne jëloon nañ fichier yi. amul ci kenn kuy dem di bind koo xam ne amul carte électeur parce que pour parrainer quelqu'un il faut avoir la carte d'électeur ku carte oui ku am carte électeur yaa ngi ci fichier bi. mais léegi comment se fait-il que nga ñëw ñu ne la douze mille parmi ñi nga indi nekkuñu ci fichier bi. man ay doublons yooyu sax man dérangé tuma parce que je me dis Georges bu déposé man ma déposé peut-être ñoo ñoo bokk carte bu ñu wotee am na ça on peut le comprendre mais nekkoo ci fichier bi c'est un vrai problème ko bu ñu wëlbatikoo ñëw ni la sa carte d'identité bi nga xamante ni da nga ko joxe alors que numéro di d'électeur bi mi ngi ci euh, nekkoo ci fichier bi est-ce que voilà du ay mbir yoo xamante ni yu xaw a doy waax la parce que quand même euh, ñëpp ñuy pare ne dañ lay laaj sa carte d'identité euh, jël information yu nekk au dos de cette carte. xam nga démb dama ko doon wax si émission bu ñu doon def émission di soir dama ko doon wax candidat boobu du Cheikh Bara Dolly ma ne ko yéen. Euh, li leen li leen war a soxal instant yi mooy ban fichier lañ la ñuy parrainer est-ce que fichier bu bu ñu demee woon élection euh, en deux mille dix-neuf ak bi législative yi passé c'est le même fichier bu ñu yor ak révision bi ñu ngi si yokk wala dafa am beneen fichier boo xam ne ça n'a rien à avec les élections. gars dafa mel ni dañoo yor seen fichier. waaw bu fekkee nag dañoo yoree parce que tu ne peux pas comprendre depuis euh, depuis bi affaire bi commencé. da ngay dégg ñetti ñetti mbir. Mhm. soit dañoo indi clé boo xam ne mënoo ko exploiter. ñu nee la yow sa clé bi bëri na ay candidat yoo xam ne dañu dañ leen ne seen clé kenn du ko exploité ñu ne wala ñu nee la parce que léegi sax waxatuñu ay cent doublons ay dix mille doublons vingt mille doublons trente neuf mille doublons Souleymane Ndéné Ndiaye Djibril Fall vingt deux mille cinquante Souleymane Ndéné Ndiaye demit du vingt trois mille vingt vingt mille la am waaye Mamadou Diop Decroix trente trente trente neuf mille xaw ma trente trois mille mais yooyu daanaka finalement bu ñu defee la somme des doublons là nañ jot dix huit millions population Sénégal balaa affaire bi di jeex. <laughs> képp finalement dikk mais kon xanaa dafa am ay Sénégal yoo xam ne dañuy wër di signé rek. <laughs> di signé rek parce que ku ñëw rek ñu ne quatorze mille doublons vingt mille doublons. c'est vrai doublon doublon externe xam doublon xam dafa am doublon interne ak doublon externe. Mhm. doublon interne bi mooy man ma ne candidat wu euh, Pape Matar. Mhm. ma signal ma validel ko benn yoon maanaam ma parrainé la benn yoon. Mhm. may jaay muus par exemple bàyyi ba ay cent personnes jaar ma nekkaat si suuf. bindaal la ñaar yoon daal mhm. bon loolu mooy benn électeur validé deux fois. Mhm. pour même candidat bi. doublon externe mooy affaire yu bëri yooyu rek nga xam ne ku ñëw rek yaa ngi quarante mille doublons vingt mille doublons loolu mooy nga signé nga parrainé Moustapha parrainé Wade parrainé xaw ma lan. mais xanaa sénégal yi nag waruñu toll à ce niveau la mel ni ñoo xam ne mosuñu voté xamuñ lan mooy parrainage au moins am nañ fi parrainage jaar na fi ñaar yoon au moins bari ñu parrainé. Mhm. ensuite bu fekkee ne gars yi xamuñu fichier bi. mais loolu dañ ko doon exiger malheureusement dem dama ko wax quelqu'un m'a envoyé un texto ne ma non les candidats dinañu jot euh, fichier bi mais seuls les candidats qualifiés l'auront à quinze jours de l'élection mais boo boo ko jotee quinze élections lan la lay jëriñee. te yëpp nga fekk ne yow am na candidat yoo xam ne ils ont déjà été recalés. parce que xamuñu woon kan moo war a voté. au mois yow bu ñu leen ko joxoon bu ñu déposé ba dem bi wuti par ñu jox leen ko. xam nga mu dañ koy def de telle sort que duñ ko duñ ci mën a changer virgule. loolu laa doon wax euh, Baara sëñ Cheikh Baara dem ma nekk c'est comme un internet rek mën nga ko lire mais mënoo ko changer. tant que pirate woo ko. Mhm. mais le fichier boo leen ko joxee c'est euh, ñu xool. c'est ñi nga xam ne région par région nit bu la ñu bëggee parrainer par exemple ñu ne la nekkoo si fichier bi kooku dina xam nu muy def tey Basirou ñëw ñu ne ko douze mille am na douze mille yoo xam ne parrainé na la te nekkuñu si fichier bi loolu je sais pas lu mu mënta nekk là c'est là véritablement le yaakaar naa ñi nga xam ne am na ñoo xam ne ñu si déposé ay recours comme Mary Teuw ñaan dégg naa day déposé recours parce que day contesté ni ni gars yi di kii candidats seen bopp sax ñoo xamul naka la ñuy vérifier pour di commencer xamul naka la ñuy vérifier sax parrain yi c'est ça le problème. Mhm. te loolu moo indi tous ces gens là. Mhm. maintenant comme ni nga ko waxee ça a am na ñoo xam ne ils seront très surpris. am na ñoo xam ne aussi bon vraiment bi nga déggee ne rek nañ leen da toog di xoolaat. Mhm. parce que dégg nga gis nga leen ñuy wër peut-être am ñoo xam ne mosoo leen gis. ah grand bi bi nu mu tudd sax. kan borom miir Alpha Thiam bi nga xam ne bind na miiru Ndakaaru yëpp. <laughs> borom téeméeri. waaw kooku nag caution bi dañ ko war a téye ñu pen mu effacé miir du mu bind noonu. pen amul cent six mille pare. amul dinañ ñëwaat dinañ ci moo tax kii Georges wax bi caution a ne saay li nga bind nii miiru jàmbur dañ koy pentiraat. Mhm. dinañ ñëwaat euh, ci ñoom. Euh, lépp téeméer lay jar. waaw moom kay bëri na ci ay téeméer essence téeméer rek lépp téeméer xam naa sax jabar dina doon téeméer incha allah <laughs> euh, dina ñëwaat sax ci parrainage yeeg yooyu mais fichier bi euh, quand bëgg naa ñu taxaw si parce que Moustapha moo ko soulevé mam mbiram mii lu euh, doy waar maa ngi jàkkaarloog benn fiche boo xamante ni fiche su parrainage la boo defee tur bi lu ñu la si laaj mooy le numéro de la lan la nañ si bi numéro carte d'électeur est-ce que nit ki question bi loolu la mën na am numéro carte électeur ba noppi du nekk ci fichier électoral normalement warul mën a nekk mais la question bi ñu war a poser mooy lan moo war a tax sénégalais bu am plus de dix huit ans ñàkk nekk ci fichier bi. lan moo war a tax sénégale bu am plus de dix huit ans. ñàkk war a nekk ci fichier bi. lan moo ko waral. kooku du citoyen ma xam nga lii ñuy wax ni bu nekkoon ci dëkk yi nga xamante ni ay duñ dëkk yi Donald Trump doon wax noonu. <laughs> dëkk yooyu soo fa demee mais c'est auto euh, dañ koy kii c'est automatique. dañ ko numériser de sorte que soo amee dix huit suba. ñu ne tag gannaaw suba wala ci saa si sax. dugal nañ la ci fichier électoral. mais euh, euh, euh, tànn ki ñu war a ki ñu war a jiite mais amul benn sénégalais buñ ci war a bàyyi. tànn ki ñu war a jiite. Mhm. ña sénégalais yëpp ñoo war a dem ñu xool ndax ki ñu fal. am na une certaine légitimité. Mhm. parce que Pape bu nekkee ne. ñun Sénégal dix huit millions lañu. Mhm. en définitive ki ñuy mujj fal pour ñu pour mu jiite ñu. deux millions de voix lay am. Ah, ah. mais ana la légitimité. tu es légal mais tu ne peux pas être légitime. donc pour man acteurs politiques yi ci seen bopp ñoom ñoo waroon a xeex pour que le maximum de sénégalais puissent voter ndax ñu mën a taxaw ne ñun kat. ay président lañu mais am nañu la légitimité. Mhm. mais xoolal président Macky Sall élection yi passé ñaata voix la mhm. sur combien d'habitants au Sénégal. Mhm. donc tey jii nii pour man ce n'est pas normal ñu ne yow am nga 18 ans te nekkuloo ci fichier électoral loolu moo nekkul loolu moo nekkul yoon léegi bu bu nekkee ne dañu jël par exemple ci euh, euh, li euh, Cheikh Bara Dolly wax mu ne am na région yoo xamante ni Macky Sall da ko ñàkkoon ci élection yi ci fichier électoral ba génne nañ fa ñu baree bari te waajooju nag des fois day xorom mais lu muy wax souvent fële la koy jëlee ci kër gu mag donc moo tax des fois day. day day baax nga ci bàyyi xel. démb maa ngi koy dégg mu ne waaye Yewwi Askan Wi cinq candidats la ñuy mujj doon démb tamit ci la wax ne Basirou Diomaye suba su demee dinañ ko ne ñii nii nekkuñu ci fichier bi. te wax nañ ko ko waxee noonu la demee. day gisaane. non gisaanewul de. gisaanewul de xam nga toog nañu fi première dame dinaan dinaan nii. ñu naan première dame moom kan lay bëgg a rey mu def émission ne man la doon waxal. donc am na fu muy déggee. <laughs> ah am na fu muy déggee <laughs> te saa njóogu am na lu mu ci du ma si ñëwaat nag mais saa njóogu am na lu mu ci donc kooku pour man. Mm-hmm. oui ay waxam jarul ñu ne ah sa daal waxati na. nañu bàyyi xel bu baax a baax a baax ci lu muy wax. Mm-hmm. te yaakaar naa ne opposition bi moom. dañu nelaw complètement ci affaire fichier électoral bi gis nga gestion fichier électoral bi nekkul loo xamante ne nii dañ ko war a bàyyi exclusivement à la DAF mm-hmm. dafa war a am benn commission boo xamante ne nii mm-hmm. tous les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale dañuy nekk ci commission boobu mm-hmm. de sorte que mu am un suivi ñuy xool ñuy dugg ak ñiy génn ñan lañu. te tamit ñu def de sorte que effectivement la bu nekkul la majorité écrasante des sénégalais yi am plus de dix-huit ans ñoo ci war a dugg mhm. mais ñu def de sorte que bu ñu nee euh, quelque part au Sénégal dix millions am nañu plus de dix-huit ans mais mu leer ñu ne que fichier bi am na au moins neuf millions cinq cent mille ci ci fichier bi. mais mënuñu ne Sénégalais ñi am plus de dix-huit ans mat nañu dix millions ba pare naan ni fichier électoral bi ay sept millions la ak loolu. ana léegi les trois millions autres ñooñu duñu ay citoyens. ñooñu seen kaddu dafa euh, kaddu Macky Sall. ñi fal ñi fal président bi sax matuñu trois millions. matuñu ko sur dix-huit millions kooku ban légitimité ngay ban légitimité ngay am. tu es certes un président légal. comme nuñ koy ñoom Macron di waxee démocratiquement élu. mais quand même bu ñu nekkee dañ koo jël euh, en fonction du nombre d' habitants ci dëkk ba. mais kenn mënul wax ne tu es légitime. <laughs> alors euh, Moustapha beneen mbir bi euh, yaakaar naa aussi.